parce que boo xoolee département bu mel ni Mbacké li ñu njëkk a te ñun ñëpp ñu gis ko mooy le travail des enfants Mbacké ak Touba gis nañ ne charrette yi nga fiy gis yëpp ay xale ñoo koy dawal te sur la convention internationale des droits des enfants il est interdit de faire travailler l'enfant à moins de 15 te tey gis nañ ne diggante Mbàkke ak Touba xale yu bari ñu ngi ci charrette yi ñu ngi ci Mbàkke Touba yi te loolu dafa nekk benn phénomène boo xam ne dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy wax exploitation et les pires formes de travail des enfants mais aussi une forme de maltraitance beneen bi ci des mooy la non inscription des enfants à l'état civil maanaam bindu xale yi ci kayitu juddu yi ñu gis ne diggante Touba ak Mbàkke da ngay gis xale bu nga ba war a def examen du am kayitu juddu dañuy mujj obligé di def ay audience foraine te les audience foraine yooyu li ci waajuru xale bi sax ñaare du am ay kayit mu nekkaat bene kon tey jaadu na bu ñu nekkee ci bës boo xam ne dañu dañuy sargal euh, dañuy màggal dañuy màndargal euh, la journée mondiale des droits des enfants te Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne dafa ratifié woon droit yooyu ñu taxawaat seetluwaat jàngaat te di lancer encore un appel à l'État ñu xoolaat le les les les textes là l'application reste vraiment tey mënuñu comprendre dëkk bu mel ni Sénégal ñu ne y a plus de cent mille enfants dans la rue et compte tenu yi nga xam ne état mu ngi koy déployer ndax toujours état warul agir. mais euh, warul di réagir mais état dafa war a agir te tey gis na état bi day xaar ba lakk-lakk am ba musiba am ñuy soog a jël ay mesures te lépp mu ngi fi kon tey su ñu demee ba nga xam ne am na ay mag yu sàkku xale bu ñu demee ba nga xam ne am na ay mag yu exploité ay xale di leen liggéeyloo ñu ñëw ci bés bu màgg bu toll nii dañ ci war a taxaw seetluwaat defaat jàngaat ngir loolu jóge fi benn yoon. tey bi mooy journée internationale pour le droit des enfants et mooy 32e fois ñu koy célébrer au niveau international ñun au niveau de Mbacké peut-être ñun dong ñooy association boo xam ne ni chaque année le 20 novembre dañ koy organiser te suñu association am na yenn association de bienfaisance la pour les enfants ak la protection des enfants ndax organiser nañ fii ay manifestations yu bëri yoo xam ne nii lépp ci mbiri xale yi la jëm ak mbiri élèves yi parce que honorable député cen Ibrahima Sy bi mu nekkee député première mandaam première année ci cinquants yi li mu njëkk def mooy jël élèves yi def baccalauréat jël jël leen restauration seen restauration jël leen seen coalition ak yëpp nga xam ne ni dañu bu ñu defee se pendant trois jours dañuy def seen épreuve ba mu jeex ci biir centre de centre d'examen yi lañ leen di fekk jox leen restauré leen jox leen seen lépp ba examen yi jeex nga xam ne duñu mën a ñibbi seeni i kër am na ci ñoo xam ne dañu ñibbi ba Touba aller bi di leen sonnal deuxième année bi ñu def circoncision xaraf jël ay ay xale dugal leen néegu góor parce que jël nañ ci une centaine mille vingt jël nañ une cinquantaine d' enfants euh, dugal leen ci mutuelle de santé yi au niveau de Mbacké ren aussi ñu jël ñu jël cent cent xale yi yoo xam ne ay cas sociaux lañ ñi ay handicapé lañ jël trois école mooy école maam Khary Penda école maam Cheikh Anta ak Omar Diop école bu ne ñu tànn fa ay élèves yoo xam ne nii seen loxo joxut seen gannaaw ñu jox leen ay kits scolaires. depuis bokk nañu aussi nekk membre CDP bi comité pour le développement la protection des enfants au niveau local mais chaque année daal ñun dañuy ñaan yàlla célébrer ko. am suñuy perspective aussi ci kanam mooy créer une maison des enfants boo xam ne nii bëgg nañ en partenariat avec l'AMO ak les institutions yoo xam ne ñoo fi nekk di protéger xale yi ñu jàpp bokk jàppante ànd bokk liggéey xale buñ for ñu am fuñ ko indi bu ñu am fàttali na amoon na aussi benn kii boo xam ne nii organisé woon nañ ko fi maanaam école yi nekk ci biir département bi yëpp ñu dem def ay récolte de vêtements jël ko jox ko yóbbu ko ci daara yi dem ci sàncaan yi jox ko ñi nga xam ne nii seen loxo jot seen gannaaw jël xale yi deen faj moom daal bëri nañ programme bi bëri na yoo xam ne nii association bi mu ngi ciy yëngu daal